asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen sama mbokki murid yi yéen sama mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen ñaanal gudd fan ak wér ak wérle te di leen xamal maître Babou ak ñi mu àndal ñu leen di défendre la ñuy wax ca tribunal bu Diourbel ba dara du ci dëgg sëñ Touba amut morom te kenn du ko kenn du ko wutal morom lii ñu wax du dara du ci dëgg dara du ci dëgg sëriñ Touba du tubaab du nasaraan du Pël Fuuta du xaadir du Baay Laay ñëpp xam nañ kan mooy Serigne Touba ak valeur li ñu bëgg a politiser di ko wax ci Serigne Touba ci biir saal ba dara amu ci de ñi nar a ñàkk ñoo ñenki waaye mbirum addiya murit moomu ko xaadir moomu ko tijaan moomu ko laayeen moomu ko sëriñ Touba sax tudduñu ko fa ndax Serigne Touba kenn du ko dugal ci palaas yooyu waaye nag am na ñoo xam ne ay nitu saytaane lañ ay nitu yéefar lañu mais Serigne Touba ci xol ñëpp la ne amul julit amul murit amul xaadir amul tijaan amul laayeen ñii nag ay niti saytaane lañ du ñu waxati dëgg te man naa kitaabu ci baaxu alxuraanu karim man gëw ma ku dul Sëñ Touba ak koo manti doon ak foo mën a bokk ak loo doon man sañ Bàmba laa gëm moom lay tiitaroo mais giñ ñaa ci baaxu sëriñ Touba lii maître baa bu wax dara du ci dëgg barke alxuraanu karim amut amut du dëgg day sos moom ñi ma àndal di def ay témoignage li ñuy wax dara du ci dëgg tudd ñu fa sax Serigne Touba addee la ñu wax ci diggante ñaar ñu seq ñu wax affaire njaay tey ñu dem war na war leen a atte ñu ne nag léegi kii ne damaa may ñu ne ko xanaa kon procureur nag xanaa kon da nga koo jox addiya xanaa kon loolu addiya la loolu foofu de la wax ji waaye baatub sëriñ Touba kenn tudd ko fa ñay daanu la ñuy daanu koo xam ne bu ñuy tànt di way Serigne Touba ci baas doo daanu nga dem ba ci biir tribunal ngay daanu xam nga ne ñooyu duñuy du ñuy murit murit du doxee noonu du ko waxee taalibu Serigne Touba du doxee ni ñuy doxee du ñuy waxee diñ koy waxee waa salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh